Dans le Coran, il y a tout et son contraire. D'ailleurs, le Coran admet lui-même ses contradictions. Mm. Dans le Coran, il y a le verset de l'épée, mais il y a aussi il n'y a nulle contrainte en religion. Comment vous, vous conciliez les deux En fait, c'est impossible. À une page, on vous dit il n'y a pas de contrainte en religion, et on vous dit même dans un autre verset euh, si Dieu avait voulu que tout le monde croit, tout le monde aurait cru. Qui es-tu, toi, pour contraindre les gens à croire Ça aussi, c'est la parole de Dieu, c'est dans le Coran. Donc vous avez deux Corans. Il y a un Coran pacifique, celui de la Mecque, et puis un Coran. Euh, et qu'est-ce qu'on fait Mais c'est les hommes qui ont fait ça. Comment on fait pour résoudre ces contradictions-là euh, et les musulmans, ils peuvent se référer à une partie comme à une autre. 150 ans plus tard, on est chez les Abbassides, donc dans la construction d'un empire, et là on se dit, bah, euh, comment on fait pour résoudre tout ça On réunit des juristes, et puis on décide de l'abrogation de la partie pacifique par la partie belliqueuse, parce qu'on est en train de construire un empire et qu'on a besoin d'un texte belliqueux. salaamaaleykum tey jii dafa am ñoo xam ne dañ doon sàkk ci ñun ñu def ab tontu ci vidéo boobu nga xam ne gis ngeen ko tubaab boobu di ci wax ndax dañ ne dafa am benn imam boo xam ne da ci doon tontu fii ci Sénégal Bim mu tontu nak mu melni tontu bi dafa dess ndax dafa melni da doon attaquer li ñuy wax bible bi ak ña nga xam comme li ñuy wax chrétien yi. Euh, yàlla dogal na nag déggu naa tubaab bi li wax déggu naa imam bi li mu wax euh, ndax comme li may wax rek comme tubaab bi li muy wax su fekkee ne nit ki dinay bàyyi xel alxuraan tontu ko moom wax dëgg yàlla du jafe waaye nag nit ki su fekkee ne dafa gëm leneen lu dul alxuraan képp mën na nekk jafe-jafe ci moom ndax damay wax ne lii tubaab bi di wax nii lii gars yi ñoo ko jàngale ci seenu téere am aaya boo xam ne dañ ko tuddee aayatu sayf maanaam aaya jaasi bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah waxdahu wasalaatu wasalaamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa mbokk di leen yàlla sunu boroom dafa ñu du ko ñaan ma ñu la xalaas arab njaay day faral di wax wala mbokk arab yi dañuy faral di misaal di cax koo xam ne dafay sabab lu la alak day sabab lu koy toroxal da ngay faral di misaal naan kel baaxisi an xitfihi bi zulfi ñu wax ne ay nit lañ ñoo xam ne dañoo mën a bëy am ay gan bëgg a reyal bëy bi gan yi waaye nag amuñu woon lenn lu ñaw lu ko mën a rey amuñu paaka amuñu dara lu mën a rey bëy wi bëy ma nekk fa di jëppi jëppi wala boog jël tànkam di ko dóor ci suuf fekk dafa doon dóor tànk ba ab paaka fa nekk ba mu génne paaka bi ñu jël paaka bi daal di koy rey ñu koy misaala nag képp koo xam ne yow yaay joxe la lay di ki nga xam ne moom mooy Mbacké Sakho nag noonu lay def saa bu xëy rek jox ñu luy gën a firndeel mooy torox tànkeem alkandem luy gën a firnde wedd gi muy alquran topp gi muy topp xam ak ñi muy yàlla gi ñi yàlla sunu borom ak ndax gi muy ndax nit ñi ak réeréer gi muy réeréer nit ñi bëgg koo teg ci alquran alquran dañ ba set wecc ci moom vidéo bi ñu bokk àndaal da koo feeñal ci anam yu bare bare bare bi si jiitu mooy moom mos naa defee vidéo di wax ne mbokk na ci tax sunna doon problème mooy sunna seen sunna gi ñuy indi wala xaadis yi ci la yéefari di jaar pour dal ci lislaam mais fekkee da ngaa nekk ci alxuraan kese loolu yéefar mënuñu ko def ñu xamaloon ko ci lu leer ci ay preuve ak ñu ëpp ñuy dal ci lislaam ci sax ba dem ba yéefar yi daal leen di eh, ñeent ñoom décorer leen jaare luñ ko luut ci alquran mooy alquran la ñuy jël jéem caa ne dafa am ay contradiction jël ay mbir yoo xam dañ koy jéem a dañ koy jéem euh, dañ koy jéem indi te su fekkee nit ki dafa taxaw ne moom daa bëgg a dindi lenn la nga xam ne mooy leeral alquran ànd ak alquran di sunna yonent bi sallallahu su ko di am problème kon mbàkki sama problème pour tontu waa ji même ñemem yàlla euh, egg na ci dafay jàkkaarloog mbir mi vidéo baa ni ñëpp gis na waa ji moom ci alquran la jaar alquran lay bëgg a utiliser pour wane ne alquran dafa am une contradiction laalul sunna la mu jéem a indi ci sunna sax mooy la nga xam ne jàpp ne loolu dafay weddi la mu wax mooy li jëm ci naasix wal mansux ndax ndax da xam ne xam mooy ilmu naasix wal mansux à chaque fois nga xam alquran na mu wàccee fa nga xam bi jiitu bu jub loolu soo ko waxee da ngay dugg ci sunna loolu da koo bëgg a sànni jaar fi nga xam ne yoon bi nga xam ne ñoom ñoo ko ibbil yéefar yi ñoom ñooy yéefar comme ñoom mooy lan jaar ci yoonu weddi lu sax ci benn dalil mooy rek ah, daal di jël nit ñi def leen seen seen i dut ay buur eh, accusation yoo xam ne complotiste ñoo koy def waaye ay buur ñoom ñoo jël nangam ñoo naa sama so ci loo xam ne tekki leen dañuy ñëw daal di sànni rek wax <laughs> waa ji jaar pour daal di dàq la nga xam ne bokk na ci li weddi la muy wax moom mooy fekkoon na muy noonu la demee sax eh, alquran ni mu amee an naasix wa mansuux kon mbir daal di ñëw beneen mbir mën nañu daal koy abrogé kon benn tanaqud du ci am kon loolu di weddi lam doon wax ji wax ne kon sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ahadith yi ñoom ñooy problème la yéefar ni ñuy utiliser ahadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci a indi ay sik sikki sàkka noonu la ñuy utiliser damay alquran te ci ëpp si alquran la ñuy utiliser bu indi ay ay sikki ay sikki sàkka beneen bi moom yoon bi mu am rek pour jaar waxoon naa ko ci benn séminaire bu ñu doon def ñoom ñii di négateur quran ñii di wedd alquran ñoom dañoo am benn euh, lu leen dal mooy alquran ñoom dañ ciy dugg ak benn pas-pas nekk seen xol ba pare mu ñoom dañoo nekk ay complexe yoo xam ne jàpp nañ gisin bi yéefar am moom moo wér moo tax dañuy dugg ñoom ci alquran ak gisuñu yéefar yi gis nga moo tax moom nan la def pour weddi waa ji rek ma di wedd moom ndax lii mu waa ji saxal moom jàpp na ne su saxee rek euh, loolu dafay firnde ne lu bon la ndax waa ji la mu bonal moo bon moom jàpp na ne jihaad boo xam jihaad tarb la lu bon la loolu ndax loolu mooy gis suñu occidentaux yi di suul alquran léegi sax moom loolu la loolu la gëm naam yéefar yi kon su duggee ci alquran ñoom nañuy fexe ba alquran kooku dëppoog lu yéefar yi wax damay soupçonné ni moom Mbacke Sakho benn waay la moo ko moo ko influencé moo lay déglu ba jëlee ko ci moom mooy Timéra yàgg naa ko soupçonné mais tey daf ko gën fi mu jaar tey si Timéra jaar na ci wàllu li ñu tuddee ayatu sayf nga gis ne Mbacke Sakho dafay jël li nga xam ne moom mooy eh, mooy suñ duggee ñoom ci islam. mooy leen seetlu rek leen xool lépp loo xam ne yéefar dañuy wax li baaxut ñoom dañuy gëm ne baaxut ba pare suñu duggee ci alquran nag faaw ñu jéem a fexe ba loolu ñu ne baaxut te yéefar ñoo baaxut bu daal di dëppoog li nga xam ne moom mooy mu dëppoog li yéefar yi wax moo dañu jël aaya yi di ko di ko xëcc di ko taawil di ko di ko ñot di ak seenug ñàkk xam seenug réer ba mu jox leen la nga xam ne moom lañu moom lañu moom lañu bëgg ci ci aay beneen mbir bi wan ne ne Macky Sall li muy wax sax du ko du ci xalaat ñu koy déglu tamit bi xalaatee waxam waaye su ko doon xalaat nañ ko bàyyi bu yàgg ci biir waxam nee na Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu fi jugee ci la ñoom ci la nit ñi commencé def ay di commencé di def ay futuhaat di commencé di jàpp ay jaam ndàngam ndàngam loolu lu ko xamee Macky Sall loolu lu mën a waxee ne wér na loolu ku ko nettali. ndax alquran moo ko nettali déedéet ndax moom wax na ne loolu ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la kon kon Mbacké Sakho ay tappale mooy lu ko arrangé lu mu jàpp ne mën na da koy gëm mooy ne loolu am na c'est-à-dire nag su ñu waxee loolu nga wax noonu yow foog rek yow noo def ba xam ne ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ñëw def ay futuhaat daal di dem ay jàpp ay jaam daal di ibbi ay dëkk fan la ko naka la ko xamee moom suñ ko waxee saxaaba sàngam nee na mu ne mënta nekk suñ waxee yaa Aïcha nee na mu ne mënta nekk Abbas nekk saxaaba yi lan doon wax alquran mënta nekk mënuñu koo xam ndax ginnaaw dund na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nangam nangam ji la wax wax wax wax wax mu ñuy nettal loo xam ne juste ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ginnaaw juste yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ci nii rek la muy weddi fële moom la ñoo di saxal fii ndax moom ta xam histoire l'islam mënu koo xam ndax moom nee na lépp la alquran ci la nekk kon la saxaaba yi def ginnaaw yonent bi salaam mënu koo xam ndax moom yoonam dafay weddi mbir yi nga xam dañ koo nettali ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul alquran moom lay jël léegi tey nag moom ñëw na daa ñuy loo xam ne am na ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci nii dañ ko war a nangul nga ne ay caaxaan ay tappale yu mag la ci lañu nekk beneen mbir bi si fa doon day xalaat kon yonent bi bam faatoo rek saxaaba yi àndoon yonent bi sallallahu alayhi à dire saxaaba yi ñi nga xam ne ñu futuxaat ci jamono Abu Bakr Siddiq jamono beneen réeram la mais loolu moo tax jug tey ay futuxaat yi muy wax ak jàpp ay jaam ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbalee ci alquran wax ko leer nañ ci amul sikki sàkk waaw su fekkoon ne sax noonu la demee mooy saxaaba ñoom ñoo ko def kon ça veut dire kon dès le début saxaaba ne ñoom alquran ci ñoom la wàcc ñu nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ci boppam dégg ñoon alquran Mbàkke a dégg alquran <laughs> c'est-à-dire ñoom alquran moom ci jamono ji ne do faatu rek nekk ci ginnaaw yonent bi ci boppam ñoom dégguñu ko noonu foofu la mbir yi tàmbali cest à euh, ñu mel ni ñoom ñoo gën a dégg alquran ci ñi nga xam ne ci ñoom la wàcc ñi nga xam ne ñoom seen seen seen seen seen deret la seen làkk bi alquran wàcc jaxasoon ndax lii di dem ibbi tàmbale ibbi Sham tàmbale ibbi li nga xam ne moom mooy Égypte Afrique loolu yëpp ci mi ngi am ci jamonoy xulafa al xulafa rashid ci Abubakar ndax leen di tàmbale daal di concrétiser ak Omar ibn Khattab ci Othman ci la ñu yónnee fële ca Euh, ci Égypte conquête Afrique daal di euh, daal di tàmbali continuer ba ci ba ci Muawiya kon ci jamono jooju ñoom ñu ngi doon def loo xam ne alxuraan waxu ko ñoom ñoom ñu dëppoo ci nag parce que ay junni junni la ñuy doon ñoom <laughs> parce que mënoo dem di ibbi ay di daaneel am euh, di daaneel comment ça s'appelle empire bu mel ni empire perse empire romain ci ay ñaari ñetti ni cest saxaaba yëpp loolu doom si gisaaka ñoom ñëpp ci bokkoon <laughs> wala ñu ëpp ca ñoom bokk noonu lañ diggoon alquran léegi waaye da wax ne kon ñi nga xam ne ñoo ànd ak yonent bi sallallahu alayhi ñoom ñoo def loolu ñoom ñoo dem ibbi ay dëkk ñoom ñoo dem li muy wax di di ko ñaawal di ko di ko di ko sa di ko di ko di ko wan wan lu bon ñoom ñoo ko def ci lu amul sikki moom ni mu def ba xam te mënu ko weddi tey moom def moom ni def ba xam ne ñoom def nañ ko ñoo leen def ba xam ne am na ñu ko def ñoo ne def ba xam ne saxaaba na loolu moom ñu jaarale ne moom ci lay def ba xam ne loolu am na futuhaat yi am na ñu daal di fay jaar daal koy firndeel ne ko ñooñu nag muy wax nag mooy Abu Bakr Omar Ousmane Ali ba ci Muawiya radiyallahu anhu mu ne mooy dernier jiit njiit ci ci ci saxaaba yi futuhaat yi wax yëpp yëpp ci ñoom seen jamono la amee kon ñooñu te ñooñu jullit ñu ànd ay junni junni lañ doonoon dem pour dem ibbi empire perse empire romain dem ibbi li nga xam ne mooy dem dal ci berbère Égypte et cetera ci Maghreb kon ñooñu ñëpp moom dafa taxaw woon ñu ne ñooñu alquran ñoom dégguñu ko woon <laughs> dañ naan caxat caxatee alquran gi <laughs> te ñooñu ñooñu jox alquran de ñooñu ñooñu jàngal alquran alquran moom moom mënu mun am fenn fu muy jaar loolu jaar saxaaba yi ñooñu moom alquran dégguñu dañ ko doon caxat caxate ñoom dañ ko doon caxat caxate euh, jël fii jël fii aaya jël fii aaya comprendre ñu ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatoo ñu dem def photo xaat dina wax ba dugal boppam ci kàmb goo xam ne yàgg na cee dugal boppam nag mais fekkee ñi koy déglu ñu ngi xalaat naka la ñu mën ko déggoo pare nag daal di ko ne di ko déglu c'est-à-dire waaye dafa wax la naañ ñe nekkoon ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñe ñoom ñoo xamul alquran moom li ñuy dal li wax ni naan am xamoo leen alquran xamoo leen alquran moom saxaabe la tàmbale moom da moo xam ne dara rek alquran mom mom moo mom mo xam alquran te nit ñoo nak tay ñu xolat ndax Macky Sakho xam na leen alquran wallahi wa rabbil bakki Macky euh ma jàppoon sax mokkal alquran mais dafa mel ni dara mokkal wut da fay jël lek ben way lay jël dal koy top la waji wax mu koy répété nañ xol te Macky Sakho ci num duggu dugg Sakho nee ci alquran ben façon xex mo fi am mooy jullit ñi ben mbir leen yàlla may ñu mën ko def moy jihadu ad dafa moy rek défendre sen bop ne amul bénen xex lan mooy défendre sen bop moy ñu attaquer lañ défendre sen bop lool motax mu ne ginnaaw gi dem di dugg ci ay dëkk di ibbi loolu euh ginnaaw gi la am moy ginnaaw yonent bi sala mam faato moy ni saxaaba yi def tayib mbacké sa xokon limi wax moy alquran is nga ben mir mo fi am ben jihad moy jihadu daf moy lan ñu attaqué la nga daal di résister ku ne attaqué nga résister su fekkee attaqué wu ñu doo xeex ka la résister ka nga xam ne moo lay attaqué bis boo ko résister ba mu dem da koy bàyyi doo ko ni xeex moom moom loolu la définir ne moo am ci Quran mu jàpp ne moom dafa jàpp ne sax nag mooy jullit ñi tàmbale ci saxaaba yi ba ci ñun ñi su ñuy wax ne jihaad ñetti jihaad ñoo ne ci Alquran jihaadu difaa mooy jihaad li nga xam ne mooy défensive ñëw na jihaadu an mooy ay say bokku judit ji xeex la leen di jàppale donte am na ñu koy dugal ci jihaadu talab meneen mooy jihaad talab jihaad talab mooy jihaad goo xam ne dafa am lu ko tax a jóg mooy daal tasaari lislaam loolu tam nañ ci ñëw ci ci la mu mujjee ci li xam ne mooy ayaat yi wax ca sabr mais dañ koy junj rek mooy ñàkk dégg seen ñàkk dégg alquran ak topp gi ñuy topp yéeféer yi moo tax ñuy weddi alquran ci lu bëree bëri ndax ñoom dañoo dégg ne ñoo jàpp na jihaadu talab moom mooy jihaad offensive suñ ko waxee rek mooy dañoo war a bëgg dem pour forcer nit ñi ñu daal di tuub mooy li tax a jug jihaad talab pour ñoom mooy dañoo bëgg a forcer nit ñi mooy ñi ko tax a jug mooy ñi ñi leen tuub jihaad talab li ko tax a jug mooy yëkkati li nga xam ne mooy baatu yàlla mu féete kaw baatu baatu kéeféer mooy lan mooy fexe ba fa yéeféer yi nekk ñu def fa ab cadre boo xam ne dina permettre nit ña ñu gëm yàlla suñu borom déglu lu baax a baax lislaam su ñëwee ceew aw dëkk di leen di leen di woo ci lislaam suñu woo ci lislaam ñu daal di ñu daal di ñu daal di ñu daal di nangu su fekkee nangu nañ euh, mu mu baleen lañ nekk ndax su ñooñu fa nekk dañuy jël dañuy doxalee cadre ba dina permettre foofu lislaam daal di tasaaroo su fekkee ahlu kitaab la ñu wax ne ñu fay jizya naam su fekkee nag bañ nañ loolu lislaam xeex xeex bi li ko tax a jóg mooy ne nekkoon nañuy xeexal da leen xeexal pour ñu euh, forcer leen waaye day xeex ñoom ngir ne ñu jëlee leen fa ñooñu ngir daan fay def benn cadre mooy lislaam daan fay dominer su dominer day def cadre boo xam ne cadre lislaam lay nekk wala ña nga xam ne sax ñoom la ñuy jàpp ca jihaad googu noonu kenn mën nañu leen jàpp ñu nekk ay ay captif nekk ay jaam te duñ doon ay day ko ne doon ay mën nañu egg ak ñoom ci sulx goo xam ne euh, dañ fay dañ fay des waaye nag cadre bi da doon cadre jullit cadre lislaam boo xam ne day permettre jullit l'islam mën fa évoluer ba baatu yàlla sunu borom mën fa mën fa mën fa jonte kon nit ki na comprendre bu baax ci suñuy wax jihad def euh, offensif nekkul jëmmi forcé forcé forcé nit ñi donte am na ñoo xam ne ragal mën na leen a mën na leen a yóbbu ba ñu xoolaat mbir gi daal di gis dëkk mooy Mbàkke Saaxo mii nii su fekkoon ne dañoo nekk ci ci dëkku lislaam suñ ko jëloon dañ koy dugal ci néeg simi comme set caw ko caw ba mu ba mu baax dina defaraat xelam dina taxaat xalaat loolu mën na tax am na ñoo xam ne suñ eggee ci ne ba ñun suñ yàlla yii nii mënuñ ñu sauver te ñii seen yàlla seen yàlla bi mi leen may doole yoo xam ne ñoo bëgg ñoo dominer bëgg ñoo dóor wala amay defet loolu mën na permettre ñenn ñu daal di xalaat ba daal dugg ci lislaam waaye au delà de ça dafa am benn cadre boo xam lislaam moom la bëgg imposer ci kaw suuf cadre boobu noonu la bëgg a teg ci installé ko cadre boobu mooy permettre nit ñi ñu mën a évoluer dugg ci lislaam duggin boo xam ne da leen di permettre ñu daal di mën a nekk ay jullit looloo xew soo xam soo xoolee l'histoire futuhaat yoo muy wax Cham ña nga xam ne ñoo jàkkaarloog saxaaba yi daal di xeex ñu ca bëri dugg ci lislaam waaye permettre nañ ba ñu ubbee Cham def benn cadre ba tey jii sooy wax Cham da ngay xalaat ne ay yéefar mosu ñu fa nekk waaye ndax da ne ay yëfar musuñ fa nekk suñu Sham mooy côté Palestine Irak tam Irak pareil permettre nañ l'islam ba ko ibbee eh, yëfar ña fa nekkoon ne ñoom ñëpp a ñu bari sa dugg islam waaye def na benn cadre boo xam ne tey jii suma Irak mënoo xalaat ne yëfar du ko nekkoon nañ fa naka noonu ci Maghreb l'islam ba mu fay dugg ay na la fekkoon berber ñu bari nekk ay yëfar ñu bari ñoom dugg ñoon ci islam waaye islam def na benn cadre ba ñëpp finalement nekk ab dëkkub suñu wax maghrib do xarit ay yefal nek nañ fon lolu moy biu jihad offensif nekul biitu ñëw fekk ni ki taw nekkal julit su nekkul jullit ma ma ray lolu dañ ko dinañ ci ñëw suñu wax la ikraha fi diin seen diggin bu bon biñ ci abu weng biñ ci am nga mo ngi diggin yefal ñoo ci ñoo ci yam kon lolu ab parenthèse la won alquran dafa fees del del del del ak ay aya ak ay aya yu wone ne l'islam yonal na yonenti ñen ci yonent ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam mu dem songu ab ay dëkk ngir wa daal di def mettre en place Lo cadre islamique loolu yi fer nak d'accord nañu dañ koy tuddé violence ñu ko tuddee seen problème ñun luñu ñu am solo moy l'islam saxal nako té li suñ ko doon suñ ñoo tonju tontu waji dañ expliquer lu woné lu leer nañ ne l'islam loolu mu saxal loolu dëgg-dëgg moy jamm mais tay loolu tax ñu juk kon japp gi mu japp né li ñuy tuddé ayatu sayf te mën nañ tudd sax bi nga xam ne dañuy tax ayatu sayf mooy ayatu suñu wax sayf rek suñu wax jaasi nekk ko ne dañ koy jublu jaasi goo xam ne dafay dafay dafay dem attaque kese jaasi goo defandam dañ koy jublu <laughs> kon jëm ñu tuddee ko ayatu sayf du problème ndax borom suñu wax ayatu sayf la ñuy bëgg wane mooy loo xam ne dañ koo tere woon ci lan moo xam mooy ci xeex rek moo xam défendre moo xam attaque ñu ne aaya sàngam ñëw daal di aaya bi rek léegi moom moom dagal nañu mën a défendre loolu sayf la mooy dafa jaasi mën nga utiliser bu attaque comme ni utiliser pour défendre waaye jullit ñi nekkoon nga ci aaya bii kese aaya yi ñu tudde aayatu sayf ñenn ñi yenn sayf yenn aaya yi ñu tudde aayatu sayf moo tax dañuy wax aayatu sayf aayatu sayf nekkoon ci la boroo xam yi wala boog ci lislaam ci la jullit ñi di jafandu ngir daal ne dañuy eh, dañuy def jihaadu talab ayib daal Quran ci boobu moo fees ak i aayul jeex yoo xam ne amul sikki sàkk nit munu cee nit munu cee wuute ci ne ci jihaadu défense comme ni ko waa ji waxee ci jihaad boo xam ne juste da ngay défendre sa bopp comme ni ko waa ji bëgg a bëgg pour daal di fekk ji yéeféer yi ñoom ci seen ci seen ci seen gisin ay aay yorul jeex na dañ ciy jël li nga xam ne mooy leen lenn lislaam saxal na ko ci anam goo xam ne saxal na ko ci ay yonent ñu def jihaadu talab ci lu dul sikki te Mbàkke sax moom loolu du ci am génn waay ndax moom dafa jàpp ne lislaam ñëwut euh, daal di abrogé benn législation avant Cheikh euh, bañ ba waxoon na ko mooy l'islam dafa jàpp ne moom euh, continuité l'islam continuité la ci yeneen yeneen religion yi li tax muy def loolu parce que dafa gis ci alquran dafa moom à chaque fois dafay wut ay génn waay ndax dañ koo won ne ci alquran am na mbir yoo xam ne saxaaba yi ñu ngi ko doon def te nekkut amut aaya bu muy ñëw wax nit ñi ne leen aaya sangam moom moo wax ñu def ko طيب مو دام ليك لامي جيني جين واي غامي ووت موي داف نان واو لولو نيوم نين كو دون داف ناخ لو اهل الكتاب دوكو داف نيوم نيكاي داف كون نيكوت ني اب اب وحي لا واتي النبي صلى الله عليه وسلم كون مو سوكون دي لو اهل الكتاب نكون داف مون كو جيني تي ليغا نمو الاسلاميه كون نيو موم يالا سونو بوروم نيو نياري يننت ci alquran ñu exemple yoo xam ne def nañ jihaad goo xam ne ne ko dañ leen attaqué ñu defaan waaye dañoo attaqué nañ jiital ki nga xam ne moom mooy Suleymaan soo demee ci suratul Naml yàlla sunu boroom daf ñuy nettali histoire Suleymaan ak reenu Saba mooy histoire Suleymaan ak yi mu xam mooy reenu reenu Saba yàlla sunu boroom ne nettali eh, mooy picc wa di hudhud ba mu demee ba gis eh, buuru Sabaudi après mu ñëw nettal ko Souleymane ba Souleymane xamee ne xibaar bi dëgg la dafa yónnee ab lettre ki nga xam ne moom mooy reenu Saba di ko woo ci lislaam di ko woo ci lislaam moo tax ci laay benn sa mu tàmbale daane hudhud idhab bi kitaabi haadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur maadha yarji'un qaalat yaa ayyuha almala mooy reen ba ne yaa ayuhal mala inni ulqiya ilayya kitaabun karim man de am na benn lettre boo xam ne yónnee nañ ma ko innahu min suleyman ki lépp lettre boo fu mu jóge mi ngi jóge ci suleyman wa innahu bismillahi irrahmani irrahim la moo nekk ci lettre bi allaa taalu alayya wa atuuni muslimin gis nga suleyman da ko woo ci lan mu ñëw dugg ci lislaam moom ak xeetam suleyman <coughs> après muraad yi ñi nga xam ne ñooy notable yu ko wër mu daal leen di consulter قال يا أيها الملو أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولي قوة وأولي بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرون فانظري ماذا تأمرين من ñoo ñu ko wër ne ko ñun de ay borom doole lañ borom ay xeexkat lañ de gis nga ñoom ñu attaquer kenn ñoom dañ leen woon ne ñoo ci sam soo ñëwul ci sam am na la xew ولن قالت إن المال إن قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظر ما يرجع المرسلون مجل أي كادو يجنيكو سليمان كم نيو خمج إسوابي طيب سليمان بكم كادو يجنيكو مني يالنا نيسي آية 36 فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم bal antum bi hadiyatikum tafrahun déglu Suleymaan moo ne irji ilayhim wala natiyannahum bi junudin laa qibala lahum biha wala nuxrijannahum minha adilla wa hum saagirun Suleymaan ne ko dellul na ngeen bëgg ma corrompe ak ay kado man jox mu ëpp lim jox dellul ne ko dinañ ko attaqué ak ci armée boo xam ne amut benn kattan ci repousser armée boobu te dinañ ko génne ci dëkkam toroxal ko mu doon ko tuuti ñu doon ñu tuuti fii ni leerul te Suleymaan kon dafa dem di jihaadi pour woote ci yàlla yoon yàlla su reenu saba su nangu doon dugg ci lislaam Suleymaan day dem attaqué ko ndax lii lañ lu ñaawlu la dañ koy ndax kon dina am benn xaraaba lu yàlla fu jaar ak ab yonentam mu jaar fa ak beneen yonentam lii de amut fu mu mën a jaar ba ne lii du jihaad jihaad difaa la Suleymaan ndax reenu saba def ko attaqué Eh? ndax daf ko attaqué nañu wax fan la ko attaqué ba muy défendre boppam Souleymane yàlla sunu borom daf ko dafa woo reenu saba ci lan ba mu xamee ne buur la daf ko yónnee lettre da ko ñëwal dugg ci islam duggoo ci islam ay may kaddoog renay saba moom bu ko doon doon bëggoon des ci diineem dafa bëggoon a des ci diineem moo tax ba xam tey xaatoog mu yónnee ko ay kaddo xam nga kooku bëgg a xeex Souleymane daal di yónnee ko lettre naam xamal ko ne bis dina leen dina ko yónnee armée boo xam ne moom amut tan ci armée boobu mooy benn condition kese la ko may mooy mu dugg ci lislaam yeneen saa yu ci la ñëwee gis Suleymaan gis bi ba daal dugg ci lislaam fii nii ana kon lii dañ koy jël sànni moom ci alquran ngir daal di kontaan loo yéefari seen giseen ci li nga xam ne moom mooy moom mooy jihaad boobu benn ngoog jàppal موسى عليه السلام <clears throat> يالا سونو بروب مي نتالي سوارام غيناو نتال نيو سوارا بامو نيك سي موك بن اسرائيل سي فين خامن مي ايجيبت با جوغي ايجيبت ا آه، فين خامن مام موي آه، فرعون يا ري فرعون با نيو ген ورا دم سي فاغا خامن موم لين يالا دادي دادي بروميتر با نيو فلان يالا سونو بروب بامن جافيك اي نيت <laughs> waaye nit ñi fekk nekk ñu ay jullit nekk ñu nekk ci lislaam kon teer boobu noonu yàlla ñi ay jullit la ko permettre mooy Moussa ak ak peuple am soo demee ci suratul maida yàlla ñu nettali loolu ñoom ñu def ak ñooñu Moussa ne yaa qawmi dukhulul al al muqaddasata allati kataba allahu lakum wala tartaddu ala adbaarikum fatanqalibu xaasirin Moussa alayhi salaam ne dug dugg leen ci suuf si nga xam ne moom leen suuf su sell nga xam ne yàlla yéen la ko yéen la ko dikk ngi def ab cadre boo ne cadre islamique la doon cadre ñu fay jaamu yàlla pas cadre boo xam ne kanane ñoo fa nekk ne bii bi loolu lay tudd euh, ñu nekk fa di nekk ca kéefar ñaan nag Moussa ne ko qaalu ya Moussa inna fiha qawman jabbarin wa inna lan nadxulaha xatta yaxrujuu minha fa in yaxrujuu fa inna daaxiluun gis nga ñu ne ko Moussa ak nga fii nii ñi fi nekk nii ay nit lañ ñoo xam ne ñu bari doole lañ ay ponkal fi nekk man ponkal ci ci jëm nag ponkal ci xeex gis nga ñun fii duñ fi dugg mukk mukk mukk mukk lu dut ñoom dañoo génn mooy kii fii arul muqaddasa bii ni ñun dugg ñu de duñu dugg lu dut da nga da nga da nga ñoom dañoo génn yàlla ne qaala rajulaani min alladina yaxaafuuna anama allahu alayhima udxulu alayhim albaab fa ida daxaltum fa ida daxaltumuuhu fa innakum gaalibuun wala allahi fatawakkalu in kuntum muminin ñaari góor ñaari góor yàlla yoo xam ne ñoom ragal ñoom ñaari góor yàlla yi nga xam ne ay ñu ragal yàlla lañ te yàlla da leen xéewale daal leen dugg leen soo leen duggee de yéenay gañe ñii da leen attaqué ñuy defaan seen bopp ñii dañoo ñëw dugg ab dëkk boo xam ni dafa rek ngir xeex ak ñoom moo tax soo aaya bi suuree ba tey ci aaya vingt quatre aaya bi la qaalu yaa Muusa ñu daal di ne ñoom ma ñoo waxoon ne ñun duñ dugg ñu daal di fedd lañu woon qaalu yaa Muusa innaa lan nadxulaha abadan maa daamu fiha fadhhab anta wa rabbuka fa qaatila innaa haahuna qaa'iduun moo tax mu ne ko yaa Muusa ñu ne ko yow Muusa ñun duñu dugg ñoom fekk ñoo ngi fi demal yow ak sa boroom ngeen xeex ñun fii la ñuy des <laughs> ah, ci leen yàlla daal di tere eh, moo tax ne natija ba qaal fa innaha muharramatun alayhim arbaina sana yatihuna fi l ard eh, teex ba nga xam ne ñoom nañ ci banu israil man na ñeen fukki at dugg ñu yàlla subhana taala daal di mbugale mbugale lool mais fii nii li ñuy tel mooy ne Moussa alayhi salaam aku xeetam yàlla di leen digal ngir ñu daal di dugg ci dëkk xeex ak ña fa nekk dugg ci dëkk daal di xeex ak ña nekk te Mbàkke sax moom nee nañu lislaam amul dara lu dul jihaadu difaa na moom jihaad ne tarab da ko jàppe ay tooñ da ko jàppe ay sos da ko jàppe nangam ak nangam ku daal di euh, li mooy yéefar xam ne kon moom ni muy weddee li yéefar yi di wax ci alquran mooy weddee alquran kon li ñaari exemple la ci anam gi nga xam ne islam wan nañu jihaad di nga xam moo jihaad talab kon Souleymane Moussa alayhi alayhi alayhi salaam ak ni ko yàlla généralisé yeneen i versets yoo xam ne day généralisé li nga xam ne moom mooy xeex gi nga xam ne na ci yonent yi yàlla sunu boroom digaloon na ñu mën a ñu mën a ñu mën a xeex ma dañuy doyloo lii. yeneen anam gi nga xam ne alquran na ko li Mbàkke sax wax alquran moom nekk fa lu dul jihaad boo xam ne dañuy attaqué après ñu la défendre seen bopp. moy netali gi ñunu nu alquran nettali bataay yi nga xamne libre livré nañ ko jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran yi gis ne yàlla netali nañu lenn ci ghazwat tabuk netali nañu lenn ci ghazwat uhud netali nañu lenn ci ghazwat hunain netali nañu lenn ci ghazwat khandaq moy al ahzab netali nañu lenn ci ghazwat badr wax nak ñun tamit lenn ci sulh al hudaybiyah ak fathu makkah alfathul akbar tayib su ñu ñëwee li nga xam ne moom mooy jëlee gazwatu uhud ak gazwatu euh, al ahzab de la xandaq ko nga koo dugal jihaadu difa ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu moo sax dañoo defan seen bopp ndax euh, ahzab dañoo coaliser pour ñëw attaquer n ci Médine uhud tamit dañoo perdre Badar ñëw daal di bëgg a fayu kon mën nga ko tuddee ci jihaadu difa waaye lii di tabuk ak badar ak li nga xam ne mooy xunayn boo ci jëlee ci alquran du doom am sikki sàkka ne amut benn yoon boo xam ne ñooñu waa xunayn ñooñu attaqué yonent mu leen défendre muy defaan boppam yonent mu leen attaqué amut benn fooy sikki sàkkee ci badar ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa génn pour xeex ci alquran mu leere ajaru sa ngay jël sunna li mu faram-fàccee yi mu ci wax te soxla nañ ko xam ci lu bari ndax sunna faram-fàcce yooyu moo mooy permettre nit ki xam jihaad niñ ko organise l'islam ba du yóbbu ci fawda du yóbbu ci benn problème bal day doom si ki sàkk ne mooy yoon bi nit ñi war a jaar waaye ndax moom ni mu def nii jaar fii di fooy alquran noonu la ñu bëree bëri jaar bu fay alquran bi def tabbi ci terrorisme ndax bañ jël mbir yi déggee ko na nga xamee ne noonu ko saxaaba yi dikkee woon déggee ko sax ni ko alquran daal di jàngale soo jëlee tamit Tabuk nag mooy amut du am sikki sàkkane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Tabuk amul sikki sàkkane waa Tabuk musuñoo jéem a jege Medine nañu dañuy xeex pal dafa sori lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jënd ki saxaabaam yàlla nettali ñu ko ngir dem la defe lan pour defaan boppam wala soo defaan ke dañ lay attaqué waaye moom mooy attaqué dañ jël nañ njëkki ci gazwat Tabuk gazwat Tabuk yàlla suñu ne nettal nañ ko surat Tawba naam yàlla ci surat su Tawba ci aaya quarante euh, quarante deux la tàmbale ولو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك walakin ba'udat alayhim shuqqa mu ne fekkoon ne gis nga ab tukki la boo xam ne bu gàtt la ñoom dinañ la topp mooy ma munafiquun waaye ñoom distance dafa sori ci ñoom distance bi nga jëm moo sori ci ñoom mu ne wa sa yaxlifuuna billah law istata'naa la xarajnaa ma'akum yuhlikuuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum la kaadibuun gis nga ñoom dañuy waat sax ne ñun da fekkoon ne am nañ kattan mën nañ leen dañ leen topp kon déglul baax yàlla sunu borom waat ñoom dañ leen topp fekkoon ne am nañ kattan ñun dañ leen topp mooy munaafiqun ba tey lay wax mooy yéen fi xam génn am fu mu jëm fan la jëm ñee da ñoom affaire dafa sori ñoom loolu bëgg ñoo den ñoo topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam di waat nag naan ñun da fekkoon ne sax mën nañ ko dañ leen topp yàlla daan ne afa allahu anka lima adinta lahum xatta yatabayyana laka alladina sadaqu wa taalama alkaadimin yàlla nag mi ngi lay jéggal na ci li nga leen li nga leen jox ndigal ñu toog ndax loolu day permettre nga mën a ràññee ñi dëggu ak ñi xam ne ñooy fen mu kon na ba tey yàlla di wax laa yastadinuka alladina yuminuuna billahi wal yawmi al axir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin gis nga ñi nga xam ne nag ñoom ñoo gëm ñoom duñu ñëw di la laaj di la ñaan ndigal ci toog ñom ñi gëm yàlla gëm yowmal qiyam ñom duñu ñaan ndigal ci tok ngir baña jihad ci sen alal ak ci sen bakkan ci sen bop ci yoonu yàlla sunu borom ban jihad lay wax moy sen voyage bi nii ñu daal di jimtal mu nek bu sori bu ko ne mu ne innama yastadinuka alladina la yu'minuna billahi wal akhir axir wartaabat qulubuhum fa hum fi raybihim yataraddaduun walaw araadu alxuruj walaw araadu alxuruj la addu lahu مؤتة ولكن ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين يا سما بارينا تن دي واخنا نيوم سو فكو ان دي بغن نيو ген اندك ياو خيخي كون فا لنجم فكو ان بغن نيو ген اندك ياو خيخي دي نن بريباريو كوم نيم واري واي نك يالا سونو بوروم جيبي مو باج سين سين سين سين دوخالين ba diisal leen ba far na nga toog ànd mu teg ca mu ne law xaraju fikum ma zaadukum illa xabaala wala awdau xilaalakum yabguunakum alfitna wa fiikum sammaauuna lahum wallahu alimun bidaalimin suñ leen jëndoon ànd géen sax duñ leen jëriñ dara dañ leen di gën a sonal rek dañ leen gën a indi luduta ah, ludutay ah, coono rek te dañu fe nekk indi fitna ah, di jaxase ñenn ñi nga xam ne dañ leen may دلال مينو وكن لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني على في الفتنة سقط وإن جهنم محيطة بالكافرين يلا سنو بروم كنت نبي ينتل غزوة تبوك أك منافقون تحوى بنشا بنشا بنشا أمان يلا كن ديوي بشي ننتلي بشي آية 83 من يا أيها النبي jaahidi alkuffaara walmunaafiqiina waglud alayhim wa mawaahum jahannama bi isal masiir kow yonent bi jeex jihaadal xeexal ak yéefar yi ak jihaad ak munaafiq jihaad ku yéefar yi muy xeex ak ñoom ci ci jaas yi munaafiqiin yi waglud alayhim mooy ñoom ñëpp taral ñëpp ñoom munaafiqoon mu nekk eh, dina xub ak eh, li nga xam ne moom mooy eh, téere téere téere yàlla bi soo ci kaw ba tey soo tawee tàmbaleeg ba yàlla na ne qaatiluuhum yucadibuhum allahu bi aydikum wa yuxzihim wa yansurukum calayhim wa yashfi suduura qawmin muminin wa yudhibu gayda quluubihim wa yatuubu allahu cala man yashaa wallahu calimun xakim am xasibtum أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه wallahu xabirum bima taamaluun yàlla sunu boroom kër sa ci la ab ci ci mujj ga ci la la kaana law kaana aradan qariban wa safaran qasida yàlla kon ngay sa fi ma qaatiluhum gii nii mooy xeex leen ak ñoom ngir yàlla di leen mbugal ñoom ci seen kon li jubluwaay xeex bi mooy yàlla day mbugal yéefar yooyu ci loxo jullit nee ko pour ñu defaan seen bopp de Tabuk yàlla nettali na ne fu sori lañ jëm ba ñu bari demuñu wala boog ñu am ñoo xam bëgg ñoo dem mooy munaafiqoon ne bëgg a toog ba am ñett ñoo xam ne tam demuñu te nekk ay julit ñett ñoo doogoon nekk ay jullit demuñu kon yéen tam kenn attaqué woogu moom moo jug dem te yàlla moo ko digal qaatiluhum xeex leen ak ñoom yuadibuhum allahu bi aydikum ngir yàlla sunu boroom daal leen di ñoom mbugal jaal ci loxo jullit ñi wa yansurkum alayhim daal leen di dimbali nag ca yàlla sunu boroom ba tey ci sura Tawba mu kon ba tey ci nettali ñu gën a leeral ne jihaad la waxoon ne jihaad jihaad talab la woon dañoo demoon ñoom xeex yi nekkul ñu attaque ñu défendre mu ne farax farixa almuxallafuuna bi maqaadihim xilaafa rasulillah wa karihuu an yujahiduu bi amwaalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qaaluu laa tanfiruu fi lxar qul naaru jahannama ashaddu xarra law kaanu yafqahuun mu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bañ a dem ànd ak moom ci jihaad gu sori googu noonu daal di bañ a dem xeexi seen alal ak seen bakkan ci yoonu yàlla suñu borom ñoom la wax ñoom dañoo kontaan ba pare daal di nit ñi nag bu leen yéen bu leen bu leen dem ci tàngaay bii te kon leen attaqué suñu toogee ci liñ gën nekk un risque ku am ne ki attaqué pour rey la nga ne nit ñi bu leen dem défendre dëkk bi yow ko ñoo ñoo ñoo ñan lay rey wax nit ñi bu leen dem fariha almuxallafuuna bi maqaadim xilaafi rasulillah wa karihu an yujahidu amwaali anfusihim fi sabilillah wa qaalu laa fi lxar bu leen dem di xeexi ci tàngaay bi qul naaru jahannama shaddu xarra law kaanu yafqahuun wax leen ne gis nga safara moo gën a moo gën a su fekkoon ne su fekkoon ne xam nañ yàlla sunu boroom daal di tagg ñi nga xam ne ñoo ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeexi moo tax ba yonent bi jógee ñu kon ne yéen doon def ñoom ndax xam gi ñu xamal alquran ماتاي سو سوره التوبه 118 من لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يذيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا من نيت نعم خامن نيوم نيو ناما نيوم لا ينتبي صلى الله عليه وسلم دم با جيم جامانو خول يالا واخ تي نيوم تي كعب بن مالك بوك تي نيوم النت اللي قص حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم كون في يالله سنبا رفنيو النت لي لغا خبنا موي طبوك جسو الطوبة يالله فنيو النت لي لو باري باري تي غزو الطبوك لب ديوان الطبوك في قرحة مجزة طبوكم نك لا لأي سوار لنتبوكم نكك فمولي لا فنيو واني فو سوري لا yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd fa ak saxaabaam dem xeexi am ñu mel ni Mbàkke Saaxo xam ne seeni xolli ay sikki sàkkaa ci nekk daal di lànk ne duñ dem ba pare nag di bëgg fexe ba ñeneen duñu dem ñeneen daal di toog su fekkoon ne kay ñoom dañ leen di attaqué ñu dem pour défendre ki nga xam ne moom dafa toog ci dëkk ba kooku gën a nekk ci risque yàlla sunu borom nettali ñu jihaad bi ñu xam ne amul sikki sàkka ne jihaadu talab la yonent bi sallallahu dafa génn ngir daal di dem euh, xeexi ak i ak i ak i yéefar yàlla itam lañ nettali li nga xam mooy gazwatu badr gazwatu badr yàlla ñu ko nettali xamal nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am jugoon di wuti ab ab mbooloo benn caravane boo xam ne moo doon jógee Makka di dem Cham ni ko yàlla junjee ci suratu Quraysh Cham Makka yeggoon nañoo am li nga xam ne mooy ay commerce yi ñu doon def moo yàlla moom lay junj suratu Quraysh naan li ilaafi Quraysh ilaafihim rihlat ash-shitaa'i wa sayf yàlla ñu nettal ne ghazwat Badr li ko tax mooy Yonent bi sallallahu alayhi wa am ànd ak mbooloom jóg di attaqué bi nga xam ne mooy mooy benn caravane mu jógee Makka boobu noonu euh, ba ko waa yi génne yenn saa mi ngi koy attaqué ñoom ñu daal défendre seen caravane mosu ñoo jóg ne dañuy li nga xam ne moom mooy yàlla daal ñu nettali li nga xam ne moom mooy. Euh, ghazwatu badr am fu mu waxee ne ñoom dañoo jug pour attaquer Medina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di euh, di défendre di défendre boppam am na yàlla ñu wax ci sourate Ali Imran wa laqad nasarakum allahu bi badrin antum adilla fattaqu llaha la'allakum tashkurun am na yàlla sunu borom tudd tur bi tax yàlla moom dimbali woon na leen fële ca Badar fekk na yéen lim bu ndaw ngeen gis nga su fekkoon ne dafa jug pour attaquer li xam mooy Medina su ñuy génn duñ doon lim bu ndaw dañuy génn ñoom ñëpp ngi defaan seen dëkk du la attaqué ngay génn rek lim bu lim mu ndaw da day waral la leen taxoon a jóg kon nekkul woon ne da am ñu attaqué ñuy euh, ñuy euh, ñuy défendre seen euh, seen seen bopp comme ni ko waa ji bëgg a bëgg a bëgg nit ñi. moom la yàlla gën a précisé surat Anfal ci verset juróom juróom-ñetteel bi wala juróom-ñaareel bi wa ya'idukum allahu ihda ta'ifatayni annaha lakum wa tawadduuna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum wa yuridu allahu an yuxaqa alxaqa bi kalimaati wa yaqtaa daabira alkafirin waaye <laughs> yàlla sunu boroom dafa diggoon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari mbooloo yi mooy benn mbooloo bi ngeen di di ngeen leen jot mooy mbooloo mi nga xam ne ñooy ñooy ñooy caravane bi wala mbooloo bi nga xam ne ñoom ñoo eh, jinnoon ngir daal di défendre seen seen caravane ko ñoom ñu doon défendre seen bopp ñoom ñu doon eh, espérer préférer mu nekk mbooloo mi nga xam ne yoruñu yoruñu ngan nay يلا سنو بروم بغلنن يلا نمبغ شي خيخ بوب نونو موي يحق الحق بالكلمات تلول موي جبل واي جامع آه، جهادو جهادو طلب ويقطع دابر الكافرين نعم دا فاي بيرميت بن كادر بوم نبن الاسلام دادي منا منا منا وي الاسلام دادي منا منا منا تسارو ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون لول مو نيكون جبل واي قال لي نتالي نياري نيتي مبولو يوي نعم مبولو يونتي بي صلى الله عليه وسلم ak mbooloom bi nga xamne moy caravane bi yeenati bi bëggoon na ñëw ak dem moy ne mi jugoon ngir défendre caravane bob mota tax yàlla dari ñoom natt ba surat suratul anfal ci aya 42 id antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al-quswa war rakb asfala minkum walaw tawaacadtum laxtalaftum fi lmicaad ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه وهي من حي عن بينه yàlla suma di xamal fii ne kon ñetti mbooloo yaa ngi nii naam id antum bil bil udwati dunya ba mboolum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa hum bil udwati alla al quswa mooy mboolum yéefar yi xam ne ñoom ñoo jug pour defaan caravane bi war rakbu asfala minkum mooy mbooloom mbooloo mi nga xam ne mooy mooy caravane bi doxoon jig yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal nañ ne ñoom joxonte ñu rendez-vous pour daje walaw tawaadtum laxtarastum fil mi'ad mooy fekkoon dañoo euh, joxonte rendez-vous dinañu dinañu wuti mais yàlla sunu boo am lu mu bëggoon a lu mu bëggoon a لم بغن أمل مو أم لم دغل ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك أن بينه ويحيى من حي أن بينه وإن الله لسميع لسميع عليم يا الله سنو برم آه، سورة الأنفال مكون بنينة لي آه، خيخ بابنانو نونو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 مهيب وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت يدان نقص على عاقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى إني أرى ما لا تروا إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون في muy gën أن leeral ne kon ñi doon taw di ko defal أن dëkk das fekkoon ne إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ñii de seen diine moo moo leen lor rek moo leen ndax moo leen lëre moo tax ñu jàpp ne mën nañoo génn seen mbooloo ndaw bi dem di mën a mën a mën a mën a xeex wala mën a résister euh, mën a daal di euh, daan ñoo xam ne ñoo leen ñoo leen ëpp wa man yatawakkal allahi fa inna allaha azizun hakim walaw tara iz yatawaffa alladina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhum adbarahum wa zuqu adab alhariq yàlla sunu borom fii ni dafa woon li nga xam ne mooy dëkkoon jubluwaay bi ak li nga xam ne mooy contexte su xasad badr amul fenn fooy liiree alquran fii ni aay yii ni mu sut lan fal wa suratu euh, li nga xam ne mooy Euh, baqara nga cay déggee benn yoon ne badr fekkoon amuñu sax xaadis yi ñëw leeral ci histoire leer nañ mooy waa Makka dañoo jugoon pour attaquer waa Medina waa Medina défendre seen défense bopp contraire bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo attaqué ab moo jugee Makka waa Makka génn ngir daal di défendre seen ngir défendre li nga xam ne mooy seen euh, seen seen bopp noonu lañu yàlla nettali xam ne gazwatu Xunayn Xunayn ñëpp xam nañ ne Xunayn nekkoon ci Medina waaye xone ne mosuñoo dox jéem ne dañuy dem daal di attaqué li nga xam Madina ndax zone xone mi nga xam ginnaaw mi nga am ginna fatxu ginnaaw fatxu mag moo tax jullit daal di bëri woon lool lool lool lool lool lool yenent bi sallallahu dafa dem foofu ngir ibbi ko ngir daat leen di daal di koy jël def ko li nga xam ne mooy suufuk suufuka suufuk l'islam moom la yàlla di nekk soo tawba لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كسركم بس يلا من تجيب بيربي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين لون مولاي جهنم يوم حنين مني دفني يوم تجينا وغير يبري بري موتهم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة لسن برام مم مولن دمبليكي bërëb yu ci bataay yu baree bari yàlla sunu borom dimbali kon li wane ne yow ma xunayn moom dafa ñëw ci ginnaaw wa yow ma xunayn kasratukum gis nga yow tam yàlla moo dimbali bis bi nga xam ne yéen seen mbooloo gi mbooloo gi bari la wala yàlla sunu borom wax moo waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ida jaa nasrullahi wal fath wa raayta annaas fi diini afwaaja fastabbih bihamdi rabbika wastaghfir nga gis ne yàlla sunu borom fii id ajabatkum kasratukum te lay joxoñ ne kon ginnaaw ba mbooloo mi baree lool lool lool lool la ayib ci lañu ci la yeneen ci def nga xam ne xunayn fan lañ ñëwee ci mbiri ginnaaw fàttuma que nit di attaqué di attaqué yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa lam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam taruha wa 'adhaba alladhina kafaru وذلك جزاء الكافرين لي موي بونيشن غيس نيغا خامل دون لانغ ني جي هاك طرب باش نعمل لهم جوبل واي تام موي داري اتك اتب يالا جي ني تاخاو داري باغ نا دونيو دونيو دوغ الاسلام تي دونيو دونيو ماي كو جالال لي خامل موي الاسلام اتب يالا لا تي اتب يالا لا تي جوم نيكوت ني سون جيلي جاسيم كو خيخ بن جيل جاسيم نيكو داغي دالاي فورسي nga دوغل سي الاسلام alal bokku na ci jumlu way li nga xam moy eh, jihadu euh يالا سونو بوروم نك ci Euh, daal di mbugalee ña nga xam ne kon ñoom ñooy euh, ñoom ñooy yéefari ci jihaad boobu ñooñu daal di euh, daal di daal di daal di taxaw summa yatubu llahu min baadi ala man yasha wallahu ghafur rahim gis nga soo jëlee lii nii kon ngay gazawaat yi nga xam ne yàlla sunu borom moom ne tëjal Qur'an doo am sikki sàkk ci nar yi nga xam ne euh, Mbacké Sakho mi koy nar ngir daal di jéem a fexe nu mu def ba waxam dëppoog euh, complexe d'infériorité moom yéefar yi alquran bi muy bi muy liir moom di dëppoog di yéefar yi di yéefar jàpp ndax jàpp na ci concept conception yéefar yi ñoom jihad dafay violence la loolu la ñuy jël pour daal di koy jamee ci l'islam jël ñiy tudd jël turu jihad di ci def terrorisme ñu jël loolu daal di koy jël pour jàmm sam ànd ak ne ñooñu di wax ñëpp soo jëloon seen yoon seen militaire seen i armée seen i seen seen civilisation ñoom ñoo ñuy gën a attaqué ay dëkk ay civilisation anéantir leen ci loo xam ne teguñu ko ci teguñu ko ci teguñu ci dara mais jihaad dafa am ay ay principe am ay fondement te ku gëm yàlla suñu borom xam l'islam di ko tax xam li tax yàlla daal di bind asamaan ak suuf doo am benn problème ci yàlla suñu borom li jëfee rek ñu ci jihaad da nga gis ne yàlla suñu borom ci alquran leer indi na ay yeneen yi xam ne def nañ jihaadu talab mooy jihaad offensif nekkul défensif ci lu amul benn benn werante yàlla sunu borom andil nañu tamit nettali nañu gazawaat yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam def nañ jamonoom ñu gis yenn yoo xam ne amul sikki sàkk ne nekkul doon défensif bal dafa doon loo xam ne pour pour Euh, pour euh, attaquer la pour euh, tasaare islam pour punir ñi nga xam ne ñoom ñoo bañ lank ne ñu dugg ci ci ci ci ci ci islam ngir daal di teg benn cadre islamique boo xam ne ci kaw suuf dañ fay mën a jaamu yàlla bañ koo bokkaale ka bañ koo bokkaale ka dara ndax loolu bokk na ci nag mooy objectif u al jihad alquran dañ ciy gis ay yu bare bare bare bare yoo xam ne yàlla sunu boroom def cay wax loo xam ne nit du am sikki sàkk lañ ciy jublu moom mooy li waajir yi di di dàq moom ak moom ak yéefram bi soo demee gis ba tey ci suratu suratu tawba yàlla sunu borom ci aya 29 neuf yi nee na qaatilu alladina laa yuminuuna billahi wala bi yawmi axir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون yala sunu borom nee na xeex leen qaatilu leen laa yu'minu xeex leen ñi nga xam ne digumuñu yàlla ak ko ab bis penc wala yu xarimoon waaye nag du ñu nekk ñoo xam ne dañuy xaraamal ma xarama allah du ñu xaraamal la yàlla xaraamal akub yonentaam dégg nga fii yàlla dafay jël eh, yàlla ne ne xeexal ak ñoom ngir ndax loo lan la ma doon xeex ñoom mooy gëmuñu yàlla ak yonentaam am ku la attaqué nga défense boobu ki la tàggat donte fekkoon ne julli sa da ngay defaan sa bopp donte fekkoon ne gëmul yàlla sa da ngay defaan sa bopp kon fii ni yàlla dafa jël li nga xam ne àlla bi tax ñuy xeex qaatilu alladina la yuminuna billah xeexal leen ñi nga xam ne ñoom gëmuñu yàlla wala bil yawmil axir te gëmuñu ñi nga xam ne mooy yowmal yow bis penc ولا يحرم المحرم الله يحرم الله يلا كبير انت حرام اللي فيني غيس دافاي وني يلا سن بروم دان ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله دني حرام الله يلا كبير انت حرام مبدا نان القران رك محرم يلا رك محرم وي يلا رك محرم يلا دي جيل تامي جيل ليغا خامني موم موي يننتي بي صلى الله عليه وسلم ديكو بوله تشري حرام ما دا خامني يننتي مول دا حرام دونت تود لا ايس دا حرام موتاخ يلا دي بريسيزي ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله موم سوني لي يننتي موك حرام دا يانغي بوكالي te yàlla moo ñu wax yàlla yonent mooy xaraamal mooy yàlla yàlla moo tax yàlla jël xaraamal gi daal koy askan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da yonent bi wa in huwa illa wahyun yuuhaa lu mu wax rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax rek yàlla moo ko ko moo ko ko wax loo mu day teg nag mu ne wala wala yadiinuuna diina alxaq te ñoom duñu diina woo diina mooy diina dëgg gi min alladina utul kitab ñan ngay xeexal ñooñu min alladina utul kitab ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox téere bi xatta yu'tul jizya gis nga xeex boobu kañ lay jeex kañ lañ koy bañ a xeexati ñaari mbir imam hatta yu'tu al-jizya yal al-musaghir moy bañu joxe li nga xamne moy jizya bañu joxe li nga xamne moy jizya suñu joxeel jizya bobu mooy lan kon ku xew day ko te su fekkoon ne ñoom dañ la attaqué nga défendre nga défendre sa do la waxe xal nga bañu joxe jizya da nga xeex ñom ko bañ bay la as fekk xex bi résister moko taw juk a défendre sa bopp boy say bo démé ba ñom danger bi nga écarté ko xex bi jeex mais xoole fii yàlla sun borom lañuy wax qatilu alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama allah wa rasuluhu wala yadiinuuna diina alxaqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul aljizya an yadin hum ban nit moy di garab xam alquran lir ay bi ba bari pare ko ne alquran mom ni wax rek mooy jihad difa kan si ban ban ban nit amul amul ku am xel bu ndaw buy buy tiim li di wax le contraire ndax léegi dafay dekkeel alquran dafa violent dafa ñëw di rey nit ñi sans règle loolu ku xamul alquran xamoo sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy moo koy wax bala alquran dafa fekk yonent sallallahu dafa fekk nit ñi nekk ay ci seen xeex nekk ay sauvage nekk di reyante ci lu amut njëriñ di reyante ngir kii daa ñuul kii dafa weex yeneen bi yàlla sunu boroom ñëw daal di tënkal leen mbir yi def ko ci organiser ko organisation boo xam ne ba àdduna tukki civilisation mel noon dootul am organisé ba tey jii nii na yonent salaam doon jihaat yi moo gën a humain humain fuuf moo gën a nekk eh, nekk lu gën a respecté bakkan doom nekkinu àdduna environnement bi fuuf que li nga xam ne moom mooy eh, li nga xam ne moom mooy eh, nit ñi tey nit ñi nit ñi nit ñi guerre ak li ñuy indi say destruction ak li ñuy rey cey ci ay nit ba moom muy am complexe suñ ko waxee violence rek mu jéem a ñoo bëgg a weddi alquran ngir daal di dëkkal leen ñoom ci seen seen caaxaan yooyu ñu nekk ba tey alquran dafa fees dell ay aaya aaya lu jeex yoo xam ne dafay xeetal dafay wax ci ci li xam jihaad mënoo ci diggee loolu jihaad talab mais pas jihaadu jihaadu daf ak jubluwaay li nga xam ne moo taxaw jóg nekkut la da cay leer ne jubluwaay bi nekkul li nga xam ne moom mooy mooy résister ma gis na dafa ñëw ci mar alquran ci ñetti baat yii ci la ci la ci la ci la aaya di ñëwee di wax ci jihaad eh, bokk na ci baat yi al jihaad fi sabilillah mokk na ci ëpp eh, day ñëwee ci alqital ñëw ci eh, an nafir lañ jël ak yenn ci yenn ci yooyu ciy taxaw nga xam ne li muy wax ni munta munta munta nekk daf nee na lii tax a li lii tax a jug mooy li tax nit ki di ñuy jihaad mooy mooy daal di défense dëkk mooy défense dëkk mooy défense alal tayib kon su fekkee ne yoon yu attaqué la eh, soo bàyyee nit ñi daal di ñëw nga bàyyi dem xeex bañ a résister sa alal da nga koy ñàkk day ñëw jël ko lekk dóor la eh, comme ni ko eh, buur Saba doon waxee innal muluuka idaa daxalu qaryatan afsaduha wa ja'alu iddata ahliha adilla soo ñëwee yàlla sunu borom ba muy wax ci ci aay yu bëri jihaad déggul yàlla sunu borom lu ñuy wax ci suuratu Tawba ci aay benn yàlla dina قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين دقلوا يلا نفكني ساني آه ساني باي ساني دوم ساني آه فرير ساني سخنة ساني ساني ساني جيجانياي ساني ألل نعم اك اي دك وا يولن يولن يولن نيه مولن گنل اك اك اك نجاي بولن باج مودادي مودادي فايت موم مولن گنل نين مولن گنل تي يالا مول مولن گنل وليس يالا كو يونتاب اك خخ في سبيل الله جهاد في سبيل الله يا تيغلو فكون ني جهاد بي لوكاي تاجو رك ماي ريزيست ديفاندر سو بي نخ نيت كي دينا تاخاو ني نان كو يو نخ داغا بريفيري say say soxna ànd ak na ne moom su fekkee demul xeex yi ba ñu jël këram soxnaa mi perte na leen ndax dinañ ko wax yow kër gi nga nekk moo moo tax doo dem xeex yi te moom xam la muy dem défendre mooy kër ga la muy dem défendre mooy baayam mooy yaayam mooy famille mooy alalam lay defendre njaayam lay défendre kon kooku naka lay mën a nekkee moom ne dafay préférer toog bañ a jihaad ngir dafa loolu moo ko gënal te lool su jihaadut jihaad bi moo koy permettre défendre loolu loolu ban xel moo ko moo ko mën a moo ko moo ko moo ko mën a moo ko mën a nangu في سنة ممتحنة يا لسنا من دواخ في آية بجيت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم مدة وقد كفروا ما جاءكم من الحق يخرجون الرسول إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا فكر دين جن دم دي خيخ في سبيل الله وابتغاء مرضاتي لن تحجكم ويسوت نجرمان يا لسنا من دواخ لا رفبوكو شي جبل ويلهم جهاد mais yàlla dafay dafa jël li nga xam mooy jihaad ngir tamit may daf koo yoonal mooy jihaad talab dafay ko jihaad des fois ku nekk ku ñu attaque si dëkk nga xeex ku ñu attaque si dëkk nga daal di jug xeex xatta yéefar yi sax côté seen dëkk dañuy xeex kon loolu ne yàlla du ca dem di ca di ca di ca di ca imtixaan nit ñi di leen di leen mu nekk épreuve pour xam ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm damay wax ci suratu Ali Imran am xasibatum أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ويعلى سنو برام من جل خار خم نير نعين جاب نيد يعلى سنو برام دين دعو أجنة تدو خم نعين خم نعيم نيو ده جهاتي نعين خم نعيم نيو من كدي سفكيني ñu attaquer sa alal nga nga daal di xeex nga défendre sa alal défendre sa dëkk na loolu mën nañ ci ràññee naam daal ci tàqale ka gëm ak ka gëmut ndax loolu képp koo xam ne am nga benn ngor bu nekk yow rek su nattee si dëgg di nga jóg xeex donte ne ko ab ne ko de ko ab ab ab jullit nga xam ne kon lii nii muy jël mu nekk lii tax yàlla suñu borom di ràññee ñi gëm ñu gëmut leneen la lu wuteeg défendre sa défendre sa défendre sa alal yàlla mën na laa yastawi alqaaiduna min almuminin غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما naka la yàlla sunu borom ñu ñu daal di attaqué ab dëkk di ñëpp war a xeex mu daal di ñi toog am na ñu mën a toog mën ngeen a toog su dee ne xeex ñi mën nañoo dem ndax su ko daal di défendre mu daal di jël ñi nga xam ne ñoom ñoo Euh, ñoom ñoo dem ñoom ñoo ëpp darajaat waaye ñi nga xam ne ñoo toog nag ñoom yàlla bu tëdda am na lu mu leen dig ceeg ak yiw waaye naka la ñuy attaqué dëkk nga a défendre sa alal yàlla ne ñenn ñeneen dem xeex keneen mën nañoo toog boobaa ñu duma leen <laughs> kan li nga xam ne moom mooy jihaad ci lislaam ci alquran amul fenn fu alquran di ñëwee te wan na jihaad li ko tax a jóg rek moom mooy difaa la chak am na difaa moo da kon jël aaya boo xam ne léegi xeex leen ñi leen di xeex te ndoxal yëpp noonu la <laughs> day jël benn mbir daal di koy tënk ci ne yàlla wax na ko loolu yàlla xeex xeexal leen ak ñi leen di ñi ngi xeex ak yéen waaw lu muy dafa tekki ne léegi bu xeex ak keneen ko xeex la yow fan la ko mën a tekkee nañ ci dee si suñu ñëwee ci fi ñuy jeexal ak moom ci ayatu euh, ayatu kon nga yëg suñu topp bi mu fi jógee suñu topp aay yi nga xam ne suñu taxawee di ko settantal doo fi jóge ci li fi ndeen ne waa ji li muy wax nii mooy dafa dugg ci alquran ak dugg na gisuñu yéeféer yi tontu dara yéeféer yi bal da ko da ko da ko soo yéeféer boobu déggoon la muy wax moom da koy gën a conforté da koy gën a reconforté ci li nga xam ne moom la moom la wax léegi mu des li nga xam ne moom mooy li muy tuddee loolu ki ñuy wax mu jàpp ne eh, boobu rek mooy aaya bi nga xam ne eh, jullit nañ cee jëfandoo dégg ñu aaya bi daa dégg contexte kon jullit ñi li ñuy tegtaloo ci aaya yi wane ci ci alquran dina raas nga dugg ci ab eh, ci ab saa ci alquran loolu yàlla sunu borom joxoñ na fa lu mel noonu ndax doye bi am ci yàlla sunu borom waaye ànd ak nag ne dafa nekk ci ay dawaab leer alquran leer da ko sunna leeral ko mooy du nekk ay individu yu jóg daal di xool ne dañuy dem. Euh, ku ne neex ñu daal dem euh, jël nit ñi di di di rey euh, yàlla suñu borom da koo teg ci règle yu leer nit ki mun jullit ñi mën nañoo signé ay pacte ak ñu du nekk ay jullit guerre du am jihad du am lu dut ne dafay nekk ci benn étendard ci ab amir bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko jiite dañuy tàqale al mushrikoon ñi nga xam ne amuñu diine ak ñi xam ne ñuy ahlu ñuy ahlu kitaab ahlu kitaab mën nañoo joxe jizya nekkut ne mbiru individuel lay doon da ngay duwër ci mbedd mi di rey ay nit ay attentat di jamaate ay paaka loolu yëpp mos na nekk jihaad yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ko noonu alxuraan jàngale ko jàngale ko noonu waaye moom état boo xam ne islamique la moom état boo xam ne ay jullit ñoo ko ñoo ko ay jullit ñoo ko jiite ab jullit jiite ko ñu yor doole dagan nañu daal di dem ci ab dëkk daal leen la leen ah ñëw leen dugg ci islam suñ dugg ci islam xeex ñoom ngir daal di fay def benn cadre islamique su fekkee ne ay xelu kitaab la suñ leen waxee njug islaam ñu bañ ñu leen joxe nañ gisa suñ bañee gisa ñu lay xeex ak ñoom loolu noonu la doon amee jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkul benn fawda nekkul benn problème boo ne mbiru individuel la ku nekk mooy jóg def lu neex groupe euh, euh, sangam daal di formé wu fee di rey ay jullit di rey ay yéefar dañuy xool rek mooy masaalik yi ak mafasid yi comme ni ko alquran daal di leer lee sunna leen ko tey loolu tax ñu jóg mën am yeneen suñuy def yeneen duruus dinañ gën a leeral faram fàcce ci li nga xam ne mooy jihaad ci ci lislam mais quant à ci li wax ne li koy tax a jóg rek mooy ñu a nga défendre loolu mooy ay caaxaan ay tappale yoo xam ne alquran jegewul wax lu jegewul wax lu lu lu mel noonu su ñëwee nag ci nga xam ne mooy eh, soratu ba tey ci soratu ba ci eh, context nga xam ne moom mi ngi ko jëlee xam naa ci cheikham boobu di timara eh, noonu dafay jël jël ne li nekk ci taw tawba yëpp la muy wax lépp rek mooy jihaad difa kese <coughs> yàlla mi ngi tàmbali في سورة براء من سورة براء براءة من الله ورسوله الذين عهدتم من المشركين قلنا أمن نيو خمنا ينتي بي صلى الله عليه وسلم دفع أمن أي بكت أك نيوم أي بكت دا نوفينوس أك أك أك نيوم يالا داري تي بنغ خميني ينتي بي صلى الله عليه وسلم أمن دولي مبك صحابة بكت يو سوخ لدنيو ندح بكت ينين كو دفون نغير نرنيو نيكون دولي ما جولي ني بكت ينين ما بكت نيو نيكون دولي ndax pacte euh, euh, li koy waral ci julli def ko yéefar mooy ñàkk doole ñàkk donc mu ñuy def pacte léegi pacte ba xam ne amatul euh, amatul solo bi amatul la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ibbi ak am na doole yàlla daal di wàcc léegi dañ na yàlla saj dañ na ba set wecc ci ñi nga xam ne ñoom amoon ak ñoom ay ay pacte déglu déglu baax fekkoon ne fii mooy lislaam moom du xeex lu dañ ko attaqué rek mooy résistance ñuy wax mooy jihad dafa fekkoon ne loolu la la jihaad difaa su fekkee ne loolu moo ko taw kon léegi pacte yi muy dindi lan mooy njëriñ dindi pacte bi parce que yow kay jarut ko yow dañ yow instant am nga doole kenn doon attaque jeex na kon looy dindi ab pacte looy dindi pacte pacte kay mooy doomu attaqué nu mu la attaqué mais su fekkee ne yor nga may attaqué <laughs> yow léegi la tax nga attaqué dañ am na doole léegi am na pacte buy dañ. يعني، اوكي بدا يكون اتاك كون في قال له كان براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين قد كنا منافسين فسيحوا في عرض عرض بعد أشهر واعلموا أنكم غير مؤجل الله وأن الله مهز الكافرين وآذان من الله ورسول الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين الله لا بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فعلى أنكم غير مؤجل الله وبشر الذين كفروا بعذاب الرحيم ولا تكن إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوا شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فَتِمُّوا إِلَيْهِمْ أَحْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ fii nii yàlla sunu boroom mu ngi exception ayib ci ña nga xam ne war a xeexal mu ne dudu ña nga xam ne nga am sekk ak ñoom li mooy pacte ci yéeféer yi ñoo xam ne ñoom doguñu pacte bi wala dimbaliwuñu yenn ñeneen ci seen kaw regarde yàlla fii ñaar ñu fi am ñoo am ñoom pacte am na ñoo xam ne julli dañuy xeex ak ñoom dafa am ñoom pacte ñooñu pacte ba dindi wuñu ko ñooñu yàlla sunu borom da leen bu leen xeexee ñoom problème moo mooy pacte bi respecté leen ko am ñoo xam ne ñoom pacte dañ koo dañ koo dog ñooñu mu ngi xeex ñoom am ñoo xam ne nag ñoom pacte bi ni ñu ko dogee mooy dañoo dem jàppale ñu doon xeex ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam walam yudahiru alaykum ahada dimbele ñu kenn ci kenn ci yéen kon am na ñoo xam ne amuñu woon pacte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu seen xeex bi yonent bi xeex ak ñoom mën na doon ñoom ñoo attaqué wala yonent bi sanda di attaqué mu ne fa timmu ilayhim ahadahum ila muddatihim mu ne nag su boobaa da ngeen matal seen pacte bi ba pacte ba mat waa su pacte matee nu ñu def yàlla da leen jox ne leen fa timmu ilayhim ahadahum ila muddatihim su fekkoon ne ñoom de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day xaar attaqué bu dog attaqué kon kay su même su pacte matee lan moo fay xaw jaruma ila muddati dañ koy nekk lañ ci nekk rek ba keroog ñu ne attaqué kon yàlla illa alladina ahadtum min almushrikin summa lam yanqudu shay'an wa lam yudahiru alaykum ahadan fatimmu ilayhim ahadahum ila muddatihim ñooñu na nga leen bàyyi seen ahad bi seen pacte bi nga def dañ ko bàyyi ba mu mat waaye léegi su matee noonu def <laughs> ah sëgab ñoom xeex ñoom ñun ñi nga war a xeexal rek ñoom ñooy ñi la attaqué ak ñi ñi ñi xam ne ñoom ñoo dog pacte bi daal lay attaqué parce ñoom la wax léegi ba mu ñëwee yàlla léegi matal leen pacte bi ak ñii ba bi mat mais lan mooy ba kan xel di liir wax yàlla suñu borom di ko di ko firi firi léegi nii yow koo xam ne du la attaqué lu doo da laa attaqué léegi yow kon pacte ba nga am ak nit mooy bu mu la attaqué ti <laughs> léegi ñu ne ko léegi yow. respecté le pacte bi ba keroog pacte bi ñëw ci termam am léegi pacte bi léegi yow su fekkee ñëwatul jeex na terme am léegi nooy def léegi mais ça de mën nga ko attaqué su fekkoon yow kese nañuy attaqué kay amul terme pacte bi kay day doon saa yi fekk attaqué wu ñu la rek sa pacte dana la yow fekk la bul xe bul bul fayu su fekkee da ngaa signé pour moom bañ laa attaqué nga ne léegi ñu ne léegi yow respecté le pacte ba pacte bi ñëw ci terme waaw su fekkee yow respecté yow sa position mooy xaar ñu daat lay attaqué léegi pacte bi ñëwee ci termam yow lu la ngay respecté pacte ba pacte ñu termam yow koy respectel kay danaa la toogal toog jàpp ñàmbura bi keroog ñu lay attaqué pacte ak ñàkk benn la ci yow yàlla ci dem mu ne fa dan sadaqal ashhurul hurum faqtulul mushrikiina xaytu wajadtumuhum mu ne fekkee ne euh, yi nga xam mooy les mois sacrés mois sacrés mënu koo xam Macky Sall mënut xam mois sacré alxuraan tudd mois sacré bokk na ci mbir yi nga xamne ne mënut fexe ba ba génne ko alquran alquran mi ñuy wax muwasaakir ana muwasaakir fu ko xam waxee mu ne fekké na muwasaakir jara faqtul almushrikiina haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wa xuzuuhum wa qudu lahum kulla marsad fa in taabu wa qamu salata wa atu zakat wa atu zakata fa khallu sabilahum inna allaha ghafurur rahim fi xoolal settantal aaya bi mooy fekkee ne muwasaakir jara jana muwasaakir yi su fekkee ne ñoom dañ la ca yàlla mi leen digal ñu xex ñu combattre mushrikiin ni après mois sacré d'après Mbacké Sakho su fekkee ne kon ci mois sacré dañu attaquer duñu duñu xeex ba fekkee nak mom xeex bi mënut a nekk lu résister kon yàlla danaan nit ñi julit na leen attaquer ci mois sacré yeen bu leen xeex bàyyi leen ba mois sacré jeex parce que mom nee na xeex bi mënut résistance kon su mois sacré ñom suñu attaquer ñu mois sacré yi <laughs> kon dañu baye ñu ray ñu su mois sacré jeexee ñun jeex nañ ci kon fi na ba naan fii naan sadaqa al ashhurul هرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم سعيدين يوم نيكو نجي أتاكي كون ليني بسبو جي هم نموي ويري بسبو بسبو جيخي نيون نيوي أتاكي أنكو مشرك لا لي شيء كونتكس لا نكون بين بب جمل المشرك بقدر يلا من أخي هكما لي بين كونتكس لا مو واجي لا شك كونتكس بس بس في الكونتين كي بيخل مي لين تخرج موي مي في رجيم آية يالله ويا ليه من فوق mu ne fen taabu wa aqaamu salaata wa aatawu zakaata fa xallu sabilahum na <laughs> ne fekkee dañoo tuub daal di commencé nag di eh, julli di joxe asaka su booba nañ leen bàyyi ah ba leen war bàyyi saa bu ñu suñu arrêté xeex ak yow xeex ak war a bàyyi fekkee ne da ngay xeex ngir résister kese su waa ji arrêté dina attaqué da nga koy bàyyi mais yàlla waxul loolu yàlla dina fen taabu nag mais kañ lañ bàyyi xeex bi moo ne fekkee dañoo tuub bàyyi joxe julli bàyyi taxawal julli daal di joxe asaka mo ne nag boobu la len di bàyyi ñoom leen indi lënt mooy yeneen ali yàlla ne in ahadu min al mushrikeen istajaara fajr hatta yasmaa kalam allah dañoo xamul ne summa abligu ma'mana dalik annam qawm la ya'lamun fi ni yàlla sunu borom da fay waxut ne julit ñëpp julit ñi ñëpp lañu xexal nit ki mën na ñëw mën na nek sax ci harb ci darul harb ngay xex ak dëkkam mu daal lay laaj refuge nak ñu nag da gis te xol wa ahadu min al mushrikeen istajaara fajr hatta yasmaa kalam allah waaw su fekkee ne sa daa bokk ci dëkk boo xam ne ngay julli ñuy xeer ñoom moom mu daa di ñaan yenent bi damaa bëgg a ñëw ñëw ci ci dëkk bi ma bëgg ñëw ci euh, ci sama réew dañ koy bàyyi mu dugg mën nañ ko bàyyi mu dugg may ko amaana su duggee foofu kenn du ko rey kenn du ko def dara donte sa dëkkam ba mu bokk nañu xeex ak ñun loolu wuteewul ak la yàlla suñu borom wax loolu amul dara luy wuteeg li yàlla suñu borom wax la la jiitu ci yàlla laa digal ñu xeex ñoom <coughs> kon lam ca teg kayfa yakunu lil mushrikina ahdu inda inda allahi wa inda rasuli illa alladina ahadtum inda almasjid alharam fama staqaamu lakum fastaqimu lahum inna allaha yuhibbul muttaqin xam ne yàlla sunu borom dana wax ne ñoom li ñu respecté ci seen terme yooyu rek yéen respecté leen ko loo koy teg loo koy loo koy déggeek la jiitu mooy ne dafa am ahd boo xam ne dafa am dafa am dafa am app bi am yàlla sun borom dafa wax dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa na ko respecté ba àpp ba jeex àpp ba jeex amatul ahad ayib waaye bu ñu respecté àpp fekk ñoom àpp ba bu leen ko dagg ña nga xam amuñu àpp ñooñ la yàlla daal di ñëw ne baraatu min allahi rasuli ne la aatu min ashrikin ñi nga àpp àpp bi jeex na tey jeex na xalaas parce que amatul àpp amuloon àpp tey dañuy arrêté li nga xam ne mooy ahad kon am ñoo xam dafa am ahad boo xam mutlaq la mais amuloon àpp boobu noonu yàlla sunu borom da leen a may ñeenti weer mooy su ashurul xurum yi jeexe rek faqatulu ñi nga xam ne dañoo am àpp nag ñooñ da leen di bàyyi ba seen àpp daal jeex ndax ñu respecté terme ba ñu amoon na dañ koy respecté ndax bañ koy def soxla woon nañ ko léegi terme boobu jeexee nag xalaas amatul pacte amatu fa <laughs> am ji ñoo xam ne kon ñoom ñoo attaqué woon ñoom ñoo dagg pacte ba ñooñu la chèque ne yàlla fa ñu xeex moom ca saasa ñi nga xam ne dagguñu pacti bi ñooñ dañ leen di bàyyi ba nga xam ne pacti bi pacte bi egg na ci egg ci termam lii mooy suratu ba lii lay leeral amut lenn loo xam ne benn bi dafay wuteeg ba ca ba ca ba ca des wala wax fa ayatu sayf day wuteeg ne dafa am lenn loo xam ne dafa wuteeg euh, lu yàlla daal di daal di wax man ayatu sayf xatta suñ ko jëlee daal di cay taxaw amul fu muy dàqee li nga xam ne mooy bal sax contraire mooy dafay saxal li nga xam ne mooy jihaad li nga mooy talab wuuteeg li Mbàkke Saaxo di Mbàkke Saaxo di di di wax kanta waxu yàlla sunu laa ikraha fi diin la ikraha fi diin képp ku dégg arab bi nga xam ne ñaari mbir yi moo ci mën am imma mu doon li nga xam ne mooy xabar mooy kon foofu naf yi lay doon wala mu doon nahay te ñaari digg yëpp na wér su doone li nga xam ne mooy naf yi la ikraha fi diin am amul lu muy wuteeg benn aaya buy digle ñu xeex ñu defaan seen bopp abut ndax yàlla kon dafay xibaare ne nit kenn mënu koo forcer ci diine te loolu mooy lu wér mooy kenn mënta ndax ngëm yàlla ci xol la te xol kenn amul ci place pour daal di koy forcer kenn moo tax yàlla nañu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman yàlla sunu borom ña nga xam ne da leen di jéggal ci lan leen forcer ñu def ko ci kuhur mooy dajale benn condition soo la forcé nga def kufr sa xool daal di nekk ci ngëm yàlla sunu boroom ba tey kooku noonu yàlla jigal na ko waaye ku ñu forcé nga daal di nekk ci kufur sa xool daal di gëm loolu amoo amoo udr te yàlla def daal def li nga xam ne moom mooy qayd boobu te xolam nekk lu dëgër ci ba tey nekk lu nekk ba tey ci ngëm lan la la bëgg foofu mooy xool kenn mënu faa forcé nit mooy soo demee ba sa xool daal di gëm dara yaa ko bëgg a gëm waaye forcé mënuñu la ko mën na laa forcé na ba nga jëf ay mbir waaye forcé la ba nga gëm loo bëgg te gëm mënta nekk mën ngaa feeñal ay mbir kon laa ikraha fi diin mën nañ ko jëlee nafi ne diine moom kenn mënu cee forcé kenn <laughs> kenn mënu cee forcé kenn ñu jëlee li nga xam ne moom mooy ne ne la diin lañ ca jublu mooy bu leen dem di woo nit ñi bu leen dem di woo nit ñi ci ne leen ñëw leen dugg ci lislaam ñu jëlee ko noonu su boobaa du am benn problème kon ñu daal ne ah li nga xam ne moom mooy a yooyu de ca Makka la ba nga xamee ne yeneen bi sallallahu sam loon doole moom mooy doole yàlla sunu borom digal ko mu daal di mën a léegi attaqué nit ñi moo koy lan moo koy téye mooy yàlla am na mbir yu noon digal selon état bi ñu toll su demee état bi ñu daal di koy jàll yàlla sunu borom daal di indi leneen lu lu tomboog état boobu te lu mooy bi taxqiq su ñu waxee nasx sax ne dafa nasx yeneen aaya doo ñoo daal di koy nasaxal mooy la muy nasaxal mooy su fekkee ne wala boog mooy bañ a xeex gi mutlaqan eh, lay lay nasaxal waaye ba tey suñ fekkee dañoo nekk ci xaalu daaf dañuy jëfee la nga xam ne mooy mooy màkk mooy su fekkee da ngaa nekk ci xaal boo xam ne yow sa bopp sax ko défendre kenn du la wax ne jëlal nga daal di jël jaay si dem di wala boog euh, ab armée di di di wala boog di woon kenn ci islam wala boog di appliquer benn cadre islamique ndax yow fa nga nekk sax suñu la attaqué woon mënoo défense boobu kon su boobaa dañuy gis ne mën nga ba day jëfee la ikraha fi din jëf jëfe aay yi wax yëpp ca sabr ndax moom lañu tuddee ayatu sabr yoo xam ne yàlla ciy diggale nit ci ñuy ñuy muñ luñ leen defit ñu daal di muñ xam ne amuñu amuñu doole kon su fekkoon la ikraha fi sax moom la muy mën a tekk rek mooy bu leen dem di woon nit ñi ci lislaam ak li nga xam ne moom mooy jaasi kon aaya yi ñëw daal di leen ñëw leen léegi mën nga ko def dafa ñëw daal koy daal di dindi benn xaal wala boog indi leen la la nga xam ne moom moo correspond ak seen xaalu léegi mooy su nekkee ci li xam ne mooy euh, xaalatu quwa doo nekk ci euh, ci xaalu quwa doo ci jamono joo xam ne am nañu am nañu doole so ne nasaxal na kon la muy nasaxal mooy bañoon a xeex gi mutlaqan te loolu moom sax munu koo weddi moom nasaxal googu moom nu mu def da cay dugg mu nasaxal googu nu mu def da cay dugg ndax moom gëm na ni kon am na jamono joo xam ne diggaluñu leen woon ñu daal di combattre donte défense sax diggaluñu leen ko woon moom weddi ne ñàkk combattre xatta défensive sax. te màkk di kenn digal leen ko woon ndax yàlla sunu borom mi ngi wax yàlla sunu borom mi ne uzina lilladina yuqatiluuna bi annahum sut xaj aya 39 uzina lilladina yuqatiluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir alladina uxrijuu min diyaarihim bi gayri xaqin illa an yaquluu rabbuna allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من من ينصره إن الله لقوي عزيز فين هي لسان بروم نانا ليك ديغلنا نالين موي نيغا خامني دا لين دي خيخ جوخ لين ديغل ني مانا خيخ ني دا لين توغ توغ لين توغ دا لين ген سين كير كير كون نيوم باج لين دي ген <laughs> بوبو كين امو نيون ديغل با يال دا لين ليغ مان نين خيخ موي كون نيوم امنا حال بني نيكون ني نين بولين بولين سا ديفاند سين بوب بولين ريزيستي موي موغ كون با تاي ايتو سيف دنجي جوبلو li nga xam ne boobu ayatu sayf digal gi leen ndigal léeg mën nañu defar seen bopp ndax mu yàlla ba ne udina lilladina yuqaataluun léegi ñoom tey jii léegi léegi jox na leen ndigal am nañ ndigal léegi kon avant amuñu ndigal googu loolu mu ngi ko tuddee nasx ah la nga xam ne mooy ñàkk xeex ga leen ñàkkoon a digal ñu xeex léegi digal nañ leen ne mën nañoo xeex kon ni nga xamee ne tamit nan leen bañoon digal ñu mën dem xeexi woo nit ci lislaam léegi digal na leen ñu def ko nan ngay mën a nangoo bii doo nangu bële ak ci ban tappale ngay def ba génn ci loolu kon ba nga ne jihad défensif la l'islam daal di euh, autorisé tey moom kese la autorisé suñ ko nangoon sax ba lañ ko autorisé tamit nekkut danañ ko autorisé ci ci ci situation yëpp ay bi leer na nang am na situation mais kenn autorisé leen ko ba leen ko autorisé mooy ginnaaw gi bañ demee Medina ba commencé am tu doole ñu autorisé la ñu mën a défendre seen bopp kon ñàkk autorisation bi jiitu bi autorisation bi na soxal na ko comme li nga xam kon nit ki mën na laa wax nga tontu si yéefar bi ne ko ca Makka dañ la nu wax ñu daal di koy ñu bañ a amuñu doole mënuñ sax défendre seen bopp kon kay babil awlaa du la wax ñu dem xeex <laughs> di woo kenn ci lislaam bañ demee am doole ñu ne saxal ko ne mën ngeen ko mën ngeen a woote. wala rek nga daal di tafsil comme niñ ko defee mooy su nekkee di nga nekk kon booba ay lañ jëfe mooy aay yi wax ci sabru muñ ak ñàkk xeex ñàkk nangam ak ñàkk défense bopp ak ñàkk nem xeex yi mooy aay yi nga fekkee jullit ñoo nekk ci ci situation am ne amuñu doole boobaa ñoo leen muñ leen muñ leen de wala tulqu aydikum ila tahluka am dinañ wax ne aay bii dañ ko soppi aay boobu waxut ci leneen ci contexte lay wax al ibra bi umum laf laa bi xusu sabab <laughs> loolu mun ko comprendre Alquran tayib ñooy leen kon bu leen bu leen def loon lu leen di lor kon muñ leen su fekkee jullit ñi comme jamono jii nii dañoo nekk ci xaal boo xam ne xaal daafa loolu la ñu war a jëfe ku loolu wàcce nga alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su nekkee ci xaal boo dañoo am doole ñu daal di dem daal di mën a defaan seen bopp suñ mënee defaan dañuy defaan seen bopp suñu ñu suñu mënee dem ba sax mën a woo nit ñi ci lislaam ak ada benn cadre islamique ak li nga xam ne mooy doole ñu daal di koy ñu daal di koy def loolu mooy alquran lim leen lim leen na lim leen digal xam ne amul benn problème bu nekk ci ci ay yàlla suñu borom euh, di waxee nit ñi ñu daal di euh, ñu mën a euh, jaamu yàlla wala boog ñu mën a xeex wala yenn saa yi mu wax ñu daal di ñu daal di nekk ñoo xam ne dañuy muñ. kenn nag lii wane seen seen grande ignorance seen ignorance <laughs> mu rakkab moom ak yéefar bi yëpp ñoom ñaari yéefar yi sa wax. ما في لين جيخلي ما ينتري سورة يونس ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين نيالا سن برو سكو نيخون نيب ني نيك كو سو داري گم كون لول داي وون نيكون يالا سن بروم دو ديگال نيت كي مرادي مرادي جهاد بور ني نيولين دوك سي الاسلام بار فير ايبي so fekkee kon moom aaya bi noonu la ko déggee walaw shaa rabbuka la amana man fi ardi jamii'an mooy sagam yàlla moom mu sooboon ñëpp gëm kon yàlla dagu na sa nit yi woo nit ci tam ndax na ko yàlla sooboon ñëpp gëm kon nañ bàyyi yàlla mu gëmal ñëpp lu amul mooy fii yàlla fii nii li irada kaw nii yàlla sunu borom lépp lam ci kaw suuf da koo soob moo mu xam ne bi sallallahu alayhi wa ne ko loo mun def ci effort xatta soo demoon jihaat sa nit ñi sax mënoo leen fex ñu gëm afa anta tukrihu naasa xatta yakunu muminin yàlla kenn mënut a gëmloo nit ci lu yàlla moo leen gëmloo yàlla mooy def tawfik suñu xol ñu daal di gëm wala yàlla xamal ne ko xamal yonent bi xamal nit ñi moo ay yéefar dañuy nekk ci kaw suuf dañuy des di nekk ci kaw ci kaw suuf yàlla su ko neexoon ñëpp daal di ñaar gëm mooy lan ci volonté universelle am al irada al kawniya al irada shar'iyya mooy yàlla suñu borom ba nga xamee ne moom li am ci kaw suuf yëpp ci coobareem la ci volonté am la dafa am lu loo xam ne ko bëgg am loo bëgg ko ca moom lañ tuddee al irada shar'iyya googu irada shar'iyya googu nag ci la yàlla digle ci la digalee woote ci la digalee daawa ci la digalee bëgg a convaincre nit ñi ci la digalee ci la digalee ci la digalee kon iraada sharciya googu noonu jëndut ci iraada kawniya gi mooy yàlla sunu boroom lépp lu xaw ci kaw suuf ci coobareem la amee volonté loolu la wax loolu lay woon fii yéen walaw shaa rabbuka la aamana man fi ardi kulluhum jamiian mooy yàlla sunu boroom lépp moom su ko xataa ki kii bokkaale moom li muy def ni ñi wet alquran loolu yàlla la neex mooy ci volonté universelle yàlla la la amee su ko yàlla su ko neexoon kenn du wedd alquran moom jàpp di wedd alquran waaye li doon leen day tax day tax léegi moom du woon ni ngi ne ñëw leen topp alquran donte moom la ñu woon ñu alquran su ko waxee waaye di te daa waaye di nag mën na ko wax waaye li nga xamee ne yàlla sunu boroom moom su ko neexoon ñëpp gëm waaye teewut mu wax nit ñi woo nit ñi ci ngëm noonu tamit la yàlla xamale ne su nekkoon ñëpp gëm waaye tamit am na ci moyens yi muy wooye nit ñi ci gëm googu doon woo leen ñu daal di bokk na ca permettre ñu am benn cadre islamique te cadre islamique boobu yenn saay foog mu ànd ak li nga xam ne moom mooy doole noot pour nit ñi daal di mën a tënku ci cadre boobu am dina permettre nit ñu nekk ci ci islam ana fii nu mu wuteeg alquran du fa am benn benn contradiction mooy fa afa anta tukrihu nnaasa xatta yakunu muminin mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla munta munta forcé kenn xatta nit ñi soo demoon de bañ dugg ci feeñal lislaam ndax dañoo ragal dañ ci dugg ndax daa nekk ay munafiqun kon nga xam li jubluwaayu jihaad bi nekkul jëmmi dem di xeexal am na ñoo xam ne lu mën na leen a def jullit mooy kon kenn forcé wu leen mooy ku dugg ci saam dafa dugg mun te xolam da koo gëm ndax gëm kenn mën ko forcé nit kon ñooñu dafa leen di am lu mu leen di poussé pour ñu daal di gëm waaye ña amul kenn koo xam ne jaasi bi mooy tax mu daal di mu daal di euh, ñu forcer ko rek mu gëm te bëggut gëm gëm kenn mënu koo forcer nit xam ni xam ni dégg ni nit ñi xaw ma ci benn lañ ko pour ñu comprendre ko afa anta tukrihu nnaasa xatta yakunu muminin kenn mënut a nit ci gëm lu mu mënti doon moo tax la ikra fi koy firee naf gi dafay gën a leer mooy ne kenn mënut a forcer nit ci gëm nit moom kenn mënu koo gëmloo te lu mu bëggut gëm moom soo ko doon <laughs> dugal ci ci taal sax munoo koo gëmloo mun na wax ci laa mel ne gëm naa waaye xolam moom munoo koo forcer mu gëm for gëm kenn mun cee forcer nit moo tax yàlla xamal yooyu salaam munoo forcer nit ci gëm gëm kenn mun cee forcer kenn kon jubluwaay jihaad bi nekkut ne nit ki ñu forcer ko ba mu gëm déedéet jubluwaay mooy ñu tënk leen ci ab cadre jubluwaay mooy ñu tënk leen ci loo xam ne bu fekkoon sa gëmuñu sax du ñu mën a def lu wuteeg ngëm loolu mooy jubluwaay bi kon jëmmi yàlla sunu borom lépp ci kaw suuf moom moo ko neex su fekkoon ne yàlla sunu borom bëggoon su ko neexoon ñëpp daal di daal di gëm loolu wuteewul ak nit ñi woote ci yoon yàlla wuteewul ak nit ñi def jihaad pour nit ñi daal di leen mettre ci cadre boo xam ne dañuy mën a euh, jaamu yàlla seen borom daal di tasaar li nga xam ne mooy islam tasaar li nga xam ne ngëm yàlla seen borom wallahu taala alam mën nañu mel fii waxtaan beneen incha allah asalaamaaleykum wa rahmatulah